seen diine judd nañ bi rek la rek waaw nañ en tout cas daal xew na xewam bu riis foofee ca Italie moom Adamo def na xewam bu riis sa doomu ndey bongo maan ya bongo nañ ko sa doomu ndey na sa bongo maan yi tëggal nañ ko lépp nee na boy xaw ma nag uh-huh. ñu pare mu kaawal ña ko doon xewal uh-huh. ndax moom à tout moment day day day mën na taxaw laay fal leen lool <laughs> ah, loolu foofu loolu laa doon wax léegi dañ leen a tout moment mën ngeen a xaar mbir bagage jabar ci kaw taabal yi non dara safu ko pense dina ko en tout cas mu def moom euh, lu baax la dañ ko ciy félicité di ko wax ne ko yàlla na leen yàlla may ay njaboot yu barkeel moom ak soxnaam soosu gis nañ ne euh, xewu aadamo bi gis nañ ci célébrité yu bari gis nañ ci ñoo xamante ne si même bu ñu nekkul foofu aussi réagir nañ à travers seen i live ak seeni façon ku ci nekk ah, fa nga ko mën a jaarale rek jaare nga ko fa <laughs> pour euh, wan sa mbégte aadamoo ci mariage bi mais gis nañ ki nga xam ne mooy Wally Seck le golden boy de la musique sénégalaise kenn gisu ko kenn gisu ko ci yëf yi kenn déggu ko ci te kenn xamul xew nag entre moom ak aadamoo te aadamoo génnoon na ni moom faramaareen la <laughs> moom mooy waali waale ak moom. faramaareen wala fara cekke la bokk. ah. waali def moom. Mm. man ko. ci naka. maanaam Wally Seck Adamo ak ni mu sonne ci Wally Seck ci li ñu gis ñun. Hmm. kii bu demee France ni ko war fa tëgg. Hmm. c'est-à-dire bu demee France war fa tëgg Adamo ngay gis ci biir yi Adamo ngay gis ci spectacle bi organisation yi. Hmm. muy passe entre Allemagne Paris di ci sonn ñu ci gis ñun. Wally Seck bu demee ba Adamo xewle jekkoon na bu mënul dem sax mu jël téléphone am woo ko ndokkale ko. te Adamo mi nga xam ne moom mooy wax nga xam ne Adamo moom kenn xam ne làmmiñam nekkul ci poosam nee na ba fii muy wax ak yow Wally Seck woowu ko Youssou Ndour bi nga xam ne ne mooy bàyyi woykat yëpp ki ñëpp bëgg mel ni moom Youssou Ndour moomee woon a Adamo Pape Diouf woon a ci mariage bi ci mariage bi am na yeneen ay Viviane ak ñeneen ñoo xam seqalante woon nañu ko Adamo woo nañ ko encouragé ko boole ci yóbbu seen ndawtal mais Wally Seck mi nga xam ne ne tax na ñu bari saaga Adamo xas Adamo jaarale Adamo ci wax ju ñaaw ju nekk dem ba tëkk Adamo ci benn boîte bu bu wari waree tëgg Paris dem nañ ba jamono jooju ñu ne soirée bi du am parce que dafa am ñu dee Sénégal wala wurta ñëw fii di tëgg aada moo taxaw wuti garde corps dem taxawal ndaje ma góorgóorlu ca ba ndaje ma am su demee ba tey jii nag aada am xew dañuy wax ne. gis nga cof. xorom dong la jëkk ak kaani. cof xorom la cof jëkk ak kaani mais lu dul loolu boo ko cofee mu jëkk boppam. nit dañ koy jàpp nit dañ koy ngëpp. man li ma gis tamit dëgg mooy aadamoo li nga xam ne Wally Seck li nga xam ne aadamoo lebal na ko Wally Wally fayu ko ko. Mhm. te ci bis boobu wu. wali Adamo lan la lebal Wally Seck du ma la may nga wax du ma la may de du ma la may Adamo lu mu lebal Wally Adamo lan la lebal lan la ko lebal xam nga lu mu ko lebal mm. mooy kenn ku nekk xam ne ne Wally dafa soxla communication te gis nga bési Wally Seck yi gën a siiw ci fi international bi mm. Adamo moo koy jaay nu mu ko jaayee Adamo mooy nu mu koy jaayee Wally il est international Adamo jaayalu ko dara lu dul di ko yàqal Wally bi mu nekk international yi dafa am ñu nekk ci ginnaawam di ko jaayal ay produits lan la ko lan la ko jaayee Wally bu doon woyte kenn tëggul est-ce que lan la ko jaayal maanaam nit ku ne day am ñu ne ci sa ginnaaw di la defal li nga mënul dama ne ma ne a Seck la def fii ngore la am am na benn femme bu ñu talu ko nañ ko ba ngir yàlla mu dallu nañ ko may faat na bu yàggut waaye waa léegi doxaat ay am na benn femme boo xam ne nii fan yi mu ngi doon def euh, euh, ouverture magasin nuñ koy wooye sëfa naka Omar sëfa bi mu doon def ouverture magasin ba Wally Seck nga fa wat bokkan ci ñi ko doon euh, inauguré mais bu leen ma wax ne ma Wally dafa nekk ci dëj ala ku laarin gémmañ waxul dëgg wax est-ce que Wally tamit mere la waa ah. kii nag du xaritam xaritam boobu woy ko ku nekk lan mooy xaritam mais dama ne Wally Wally woy ni taxul mu nekk xaritam Adamo eh. Adamo dama ne man Adamo aw doxalinam am na lu ma ci d'accord mais dama ne Wally Seck fii jëfut jëfi gor xamal la gor xamal nga def akay gor wala ñu laa soxla sa ngor dëgg akay gor mooy sa xarit xewle sab nawle ana xaritam kan mooy xaritam mais Adamo Adamo fu nu mu nekkee xaritu ko way Adamo sama rakk ji sama xarit bi way na ko fu nekk nu mu ko nu ko Wally Seck man wayu ma ko ci ko ci baay Wally Seck wayu ma nu ko way Adamo rek parce que eh, tellement waa eh, Wally ñi mu way eh, am na ñoo xam leen mm-hmm. dama ne xoolal gis nga lii moom képp man ngeen naa mere Adamo wax ci lu nekk waali tal na aadama waalee ngi doxee ay soxla mu ngi fenn mu ngi dem mu bëgg a dem ma ne jëmul fenn rafetlu ma ko bi warul woon sax génn di wax ma ci jekkut waali sekk na am colorité jàpp nitam ñi ku la wax ne waali dafa xam doon doon moom lu mu def baax na alors que moom man doxi bopp jàppi boppam moom Mamadou Mamadou jàpp ñenn ñi <laughs> Mamadou non waali sekk na yëg aadama aadama dafa sori ci waali sekk boo xoolee commentaire nan la soree ci moom koo xam ne bu ne dafa sori ci yow bu ko neexee yàq kese ba say nit ma loolu loolu laa wax ma ne est-ce que waali nit bu fekkee ne da ngaa sori ci moom waroo bëgg lu ko naqari lu tax ci moom waroo ko lii yaayam faatu na bu yàggul aadamoo dégg na ay wax yum ci wax am na yoo xam ne kenn bëggul woon say sa sa sa ah feebaru feebaru jaaga naka la demee xam nga feebar moom sekk wàcc na liggéey tamit mu wax ci ay wax nit ku nekk est ak ak faram biir biir biir faramaaren bi muy dugg di jaxase xoolal nit ku ne mu enregistré teg say audio nit ku nekk ak la la yóbbu man ba man daal la laa mën a d'accord gis nañ ko Wally Seck li Adamo Wally ah, lu tax woowu ko loolu nga war a taxaw seetlu lu tax woowu ko loolu nga war a taxaw seetlu lu tax ko waali Adamo mooy kan ba waali di ko woo dafa yàgg lan la defal waali war a woo lu am tur lan la defal waali mais gis na di mbubboo waali te fekk bëggoo ko ay sénégalais ah sénégalais la daj ci waali sekk lan la daj ci moom ñun xam nañ lan la daj ci moom mooy teraanga njukkal mm-hmm. Adamo dafa yàgg sonn ci waali sekk waali da koo teral Adamo mu ngi door am bis de mm-hmm. ba ñu xamee Adamo ba tey Adamo ngi door am bis mm-hmm. suñ demee ba Youssou Ndour le grand Youssou Ndour di woo Adamo parce que xam na li Adamo représenté ci national ak international Pape xam na rivalité la am tuuti concurrence bu non concurrence mënu fa am Youssou parce que xam nga ne Adamo war a taxaw seetlu ko mooy lan bokkuñu lu tax Wally du cof bësu nit lu tax mu inauguration boutique bu ko jaree mu mu dem. waaw kii xew la munul dem. ñàkk mu woo ko ñàkk ko du kóllëre de loolu nga war a taxaw seetlu lu tax Wally def recul ci Adamo pourquoi mu def recul dama ne bi Omaro ñëwee ba tey def na vidéo Omaro def na vidéo encouragé Adamo ne ko parce que nekkuma fi mais konoon ku ma fa dëgg na ma mas mais Adamo ñëpp xam na ne day njuuj njaaj waaye lebal Wally Seck do nga may déglu lan la a dégg du ko nangu Adamo dafa lebal Adamo ba mu naan bàyyi na saaga bu ngeen ma dégloo ma wax bu ngeen ma dégloo mu ma wax leen dëgg yu wér Adamo bañ nañ ko ba tey ji bu mas a génn nun ñu lu ñuy def da wooyu Wally Seck parce que su ko wooyee Adamo est-ce que na cee a ma woo kon su ma woowutan man mii di wax yow rek man xam naa koo xam ne lomotifam mu génnee man maa xam Wally Seck la fexe ba jot ko téléphone Adamo génne ko am na numéro Wally Adamo mm. luy am na numéro Wally Adama xam ne xool. bos de néeg yooyu ñu xam nga wax ko Wally Seck yéen nga xam ne faramaareen ngeen bokk di ko défendre de dëgg moo ñu fi tax toog bokkuñu benn bu ñu classé fenn bokkuñu fenn am respect ñi nga xam dañ koo bëgg di sonn ci moom bëgg yëg koy fay Wally li Adamo daj moom nee la daj moom c'est la première fois Adamo di am bis Adamo heure buy wax ak Waly ci ñeneen la koy jaarale ku ci mel ne Youssou Dieng wala nu mu tudd Amady Badiane amul numéro Waly direct gis nañ ko ama bàyyi gis nañ ko tout récemment moom amadi Amady Badiane Amady Badiane ngi génne di wax fi mu jaar ak Adamo ne na ko na ko dimbale ngir yàlla mu bàyyi ko ni mu ko daan tegee parce que à tout moment bu dara xewee dañ naan moo nekk ci ginnaawam te moom heure bu dara doon am ñu ne Waly moo du Waly moo ko Amady bajaan moo koy woo ba ba mu fi ba mu fi provoqué Viviane Amady Badiane moo ko woon ne ko problème ak Titi la même chose te moo xëy Willy Pandé ay ay vocal yi Amady Badiane appel yi ñu doon wax tas ko ci toile matul xarit non waali matul xarit Adamo dadul xarit tam mais Adamo du Adamo Adamo du xarit waali yow tamit waali du nawloo taxaw ci seen bi ko waali day question waali waali way nit dafa neex mu nekk xaritam xam nga lan moo xam nga lan moo tax man la xam nga lan moo tax man la waali du nawloo aadama parce que bokkuñu li ñuy def waali day bégal xolu doomu aadama yi di def lu baax di ko wax aadamoo ci beneen côté la nekk yàq doomu aadama yi euh, est-ce que xam nga seen xamante naka la mhm. waali lañ invité nu mu tudd euh, Sen TV mhm. ñoom Pape Cheikh Diallo ñoom ñoom kii nu mu tudd Cheikh Cheikh Sarr mhm. ñoom ñoo ko dugal direct waale xamul woon ne sax dañuy dugal aadamoo waaw ci la ko waale ne ko dama lay ñaanati nga bàyyi saagay xorom mu ne ko bàyyi naa ko mm-hmm. mais dootuma xoromati. Mhm. est-ce tax na mu bàyyi xorom. waaye dafa ndànk nag. waaye léegi ginnaaw loolu jour da ngeen may mais du xaritam xaritam boobu ngay ay waale dafa goree ne dara waale kuy wër gor ba egsi si moom boo ko séenee naan nangu ne bis boo xam ne ni waale sekk am na ko rek Adamo taxaw na ci saayir ak baatin sonn ci naka jóge Allemagne daggi tikke waaw da seetaani ji parce loolu da leen di Adamo ñëpp Sidi Diop ba mu jógee fii dem Adamo dafa déplacé wu dem soirée Sidi keneen ak keneen la même chose wax ma Adamo dem fecc Adama day dem di jàpp ca organisation ba. il faut ngeen xam ne ban organisation non Wally Seck ku ko masala ko masala rek jot nga Adamo dama ne nag ne nit ki sax bu fekkee yow bëggoo ko te mu bëgg la mm-hmm. topp la nga yor jikkoy nit ko baax bu amee bis war nga ko mën a waaw ba mu ko rendre hommage ba mu ko bëgg xam ne kii da koo bëgg ah. tax na mu woy ko ah, mais du xaritam na ko woo dem bi du force da koy dem nga ñëw loolu force la. waaye dama c'est obligation. mais mu woo ko mais mu woo ko. nu mu koy wax mais xam lan laa d'accord ci sénégalais li ñuy wax mooy waali dafa ne ci dëj amul jot waali gën am jot ñëpp mu ngi ci di taxawaalu comme ñëpp. taxawaaluwul parce que ba léegi eh, Omar Sefa bu waali dem. mais loolu loolu yàgg loolu yàgg xaw na parce que maman maman Diaga am na am na 40 am na 40 ah. kon kon kon ñi wax ne kon neex dafa nekk ci lu ko. non non non Wally Seck man la wax lan la mere Adamo di xam nga la Adamo ala moom léeg-léeg day wax dëgg yu wér mooy Wally Seck jamono ji nga xam dafa jàpp groupe Sidi Diop bi di ko tasaare di ko tas benn par benn di ko roccet aadamoo taxaw wax ci dëgg. yoo xanaa li ñuy jaaduwul loolu moo naqari. yoo xanaa man damaa xam xaw ma ko aw ma wax la bokk Wally Seck ci élément Sidi la moo ko metti parce que lan la mooy. dafa jël Sidi Diop jàpp ko di ko nal comme. nan la ko nalee Wally Sidi di rakkal nan la fa dugal alalam yëpp léegi nag Adama moo taxaw ne lii ànduma ci eh. loolu la ko Wally mere képp mais dama ne coloré ginnaaw lay féete mais Adama moom moom moom Adama kan la faral Adama finalement kan la àndal Adama mooy xaritam Wally daal il faut ñu wax ko bañ Wally bu defee lu jaaduwul dañ koy wax ne ko li nga def jaaduwul li mu def lan moo ci ne lan moo ci jaadu mooy Adama day xaritam wane ko xaritam bàyyi terme xarit boobu du xaritam du xaritam du xaritam nu mu nekkee xaritam léegi lan mooy xarit nu mu nekkee xaritam du xaritam mhm. xaritam la du xaritam waale xamuñu sax ba xam nag waale peut-être ko ci suuf woowu ko ba nii may waxe yow ne ko xam nga xanaa avant mais Ngom yow lan nga mën a taxawee jël défense Adamo Adamo kan moo war a jël défense am a a fii ni mu ci biir faramaareen di leen nal ko jël ñam fa soxla tasaare ko yàqal. moom moo leen jël wala ñoom ñoo. waaw waaw parce que moo leen wan. xaalis ñoom ñoo xaalis ñooñu da waaye daf ko leer ne xaalis lañ yor lañ gëm mu tegal leen xaalis ñu ñëw. ay ay ñoo bëgg demal seen ñoo bëgg a transhumel seen bopp parce que nag seen bopp ci biir. non euh, mais normal leen kuy ñëw mu ne la eh. bu xoolal bu leen siy di. dara moo normal bu ko doon moom la yàq ketame kii ko ba di ne ko sa sa audio yooyu génne ma ci sa génne ma ci sama tur bi na ko bàyyi. Mhm. bàyyi sama tur bi. man tudd man man man fi ne nii Amary Amary Badiano keneen ka Saakura Waale man yooyu yëpp waxuma ko dama ne jëmmi Waly Seck moo war a na affiché wu ci mariage Adamo. lan moo tax muy affiché wu. parce que Adamo da koo lebal parce que déjà Waly Seck mi ngi jox rendez-vous Sénégalais yëpp ko dara. Sénégalais yëpp mi ngi leen jox rendez-vous suba incha allah muy le 12 21h. 21h kooku am na jotu dem ci ay mariage Adamo. rendez-vous lan la. day wax ak sénégalais yi. dafa ndànk xam nga mala gis ngeen nag maanaam man Wally sax gis nga ay bis yi muy jël ak ay heure am ak i waxtoom man man man sax loolu beneen loolu dama posé waat ay question quoi. ñaan question lan mais mais mais Wally nanu may ñun dañuy wor. dañuy woor mais ñun dañu may ñun dañuy ni li muy ñëw di wax. ah yaa ko gis iid yooyu mu ciy tëgg. vraiment daal wali tëgg iid. non maanaam wali sax maanaam iid yi mu door tëgg mu tëdd. waaw la jamono mu génn di ba toll ci weeru koor mu bàyyi nag ustaas yi génn jaamuloo nit ñi yàlla ndax moom ci caaxaan Wally leen doon woo rek. Wally terewul Wally terewul benn delluwaat ci ginnaaw terewul terewul benn oustaz génn mais nag kenn mënta dëkk dina génn déedéet déedéet xoolal daal weeru koor yi na dem nëbbu dem na jaale ji biisu bu ko mhm. dem na ca kii Omar ba lam lam la lam kii lamu fësul ci bësu aadamoo bi loolu la sénégalais yi war a taxaw seetlu pourquoi mu jël recul boobu ci moom mhm. voilà aadamoo na xam boppam rek bëgg buur buur bëgg ko gën ci boppam Adamo moom am na bës. wuy ma moo tax ñu koy wax ah, Adamo man Adamo man moo am bës. bës mi mooy lan bësu yàq nit. waxal nit lu ñaaw. ba ma xamee Adamo ba Adamo di Adamo ba léegi Adama jeg alias Adamo ba ma xamee ba tey ci mariage jour mariage bii la Moussa defee lu nit mën a ne ah, tane na. waaye am nañu ko ci doon tas parce que à tout moment rek mën na def lu ko sax mais loolu mu doon def ma sotti dégg Wally mu wax ko ci na ko mais lan moo tax waa Wally de mi mi ngi génn ay ay audio Amady Badiane ma xam mooy Wally moom ak lu mën a doon ak lu mën a nekk ci kaw suuf mooy dina jëflanteeg doomu aadama yi waali bañ a jëflante yow de yow yow yow ngom yow lan ci mbattal la puus mu dem parce que dama xam ne puus mu dem boo ne waali ci jëmmi boppam mm. nay jëflanteeg nit ñi waali ku ko xam xam ne dafa oyof day jëflanteeg ay nit puus mu dem ñàkk puus mu dem Youssou Ndour man moom Youssou Ndour mi wax nii laa ko dul Youssou Ndour mi muy wax woona woona woona Adamo Youssou Ndour concurrent wu la nañ ko waxtu dund. concurrent concurrent la kay. wallaahi yow nag kon am na loola réer la ba Youssou Ndour Waly. la. non concurrent yow sax ci level bi ñu nekk. Ah, ñoom concurrent Waly kay bi concurrent xanaa ay ñoom xale yi Sidi Diop ay ñoom Thiat Seck. Waly day moroomu Sidi Diop mais <laughs> man lu ma munta concevoir mhm. mooy ki nga xamante ne moom moo di Waly Seck li nga wax ne mhm. maanaam dafa jaxasoowut ak nit ñi Waly ku ko xam-xam ne dafa jaxasoo ay doomu aadama day am colère laa wax na am colère ak am kóllëre moo ko yóbbu ci inauguration wu boutique bu Omar Cheba bi ñàkk kóllëre moo ko xañ woo Adamo ne ko félicitation mais da xam lan la ko Adamo def ba tax woowu ko da nga xam a a mariage bi di la mariage bi démb la woon démb la daa a Wally Seck am na droit am na droit dem fu ko neex am na droit woo ko neex Adamo ci boppam ngeen war a waxal na changé comme takk na jabar xëy na sax dina tane te jabar jaa ngi jéeg-jéeglu jéeg man fii ku fi def lu jaadu dama koy wax Adama bu xëy def lu normal dama koy bu may Wally Seck dama a ah. la man dama bëgg nit ko am kóllëre ma ne loolu la chaque jour nit xewle ku la jege xewle te doo fa dem dem wala nga mais Wally Seck ak Adama force par rapport ak Adama da du mhm. mhm. mhm. moom mooy wax mooy ndax Wally Seck ah. Adama daal bu ma noonu ma dem toog na fooyi mi ngi ne noonu en tout cas. Marème dañ le choix du peuple nag ba leen jaamur. peuple bee ko choisir seen bopp de. faramaa leen boobu. le choix du peuple wala le choix du poubelle. le chanteur du peuple muy sa problème nag. Ah. yow damaa yaakaar ne est-ce que waa la ci suuf suba teel fan Makhtar dañoo bokk turandoo waaye nag gisuma de xawma ko xamuma. Makhtar Diop waaw xamuma ah, xawma de. père wuyul wuyul xamuma ko man damay wax dëgg te yàlla tax rek wax dëgg yàlla. est-ce que doomu nday est-ce que doomu nday boucher wuyul wuyul ngom waaw ngom daa bëgg a intégré Matar daa teel jóg ca suba teel ca suba la jóg ba teel jóg da raw gaa yi Matar du moromu xale de takku nga ba dëgër de ba mel ni fi mu ne nii takku naa yàgg na yow xaax ma ne Matar sax moom léegi fara cekke la bokk foo ne fara cekke fara cekke meen da eh, eh, eh, ngeen di